Serigne Cheikh Ahmad Mbacke ñang waxee ci carte lay jëm carte carte ak yenn ci ay xeetam ak itam yenn ci ay loram carte buñ bëggee xam mooy lan doon naan rek mooy lool day am ñu joxe ci seen alal day am ñu joxe ci seen alal ku nekk am lu mu joxe ñu dajale ko am nu ñu def ba am ñu delloo lu ëpp lañ joxe woon am ñu ñàkk lañ joxe woon wala boobu am ñu joxaat dañuy am nu def ba am ñu joxaat lu ëpp lañ joxe woon am ñu ñàkk lañ joxe woon kon wàll wàll bu ne day joxe dara moo xam ñaari wàll rek la wala ëpp na ñaari wàll waaye dal wàll bu ne day am lu mu joxe ci xaalis moo ñu am nuñ def ba am ñuñ jox lu ëpp lañ joxe woon am ñuñ bañ jox joxaat dara ñu ñàkk te loolee ñuy def nag du doon ab liggéey waaye day aju rek ci li ñuy tuddee muur muur ci waxin dañ naan ku am muur moom la ñuy jox loo ko lam ku ñàkk muur mooy ñàkk muur mooy li ñuy tuddee chance chance nga xam ci chance rek la aju kii am gi muy am ci chance la aju kee ñàkk gi ñuy ñàkk ci chance la aju waaye amul sabab bu bu dëgg boo xam ne sabab bu dëgg la bu dëggu bu waral kee am waral kee ñàkk waaye chance rek la lépp lu deme noonu rek carte la buñ ko ko tuddee ak buñ ko ko tuddewut carte googu nag day lool yàlla da ko araamal yàlla dafa xaraamal carte te ci alquranul karim yàlla da koy boole di ko tuddandoo ak sàngara carte yàlla da koy tuddandoo ak sàngara di leen jox benn wàccuwaay benn wàccuwaay di leen jox benn wàccuwaay ba àgg ci boole leen araamal ñoom ñaar te sàngara ba ne xam na fi mu toll ci ak mbon ba jullit ñi dañ naan sàngara mooy ndey yu bon yëpp mooy ndey yu bon yëpp mooy yées ci yu bon sàngara bi yées ci yu bon yi nag yàlla da koy tuddandoo ak carte ba àgg ci joxa joxandoo leen ak damay araamal leen tudd na leen ñoom ñaar ba àgg ci araamal leen ñoom ñaar loolu kon day wane ko moom it fi mu toll ndax sàngara kenn nattablewut fi mu toll ci mbon kon li ko yàlla booleel di leen tuddandoo ba àgg ci joxe leen doon joxe joxe leen doo leen àtte day wane na loolu tam lu lu bon la kon moom it damay carte carte boobu nag am na ci yooyu dafa fés ñi koy def dañ koy fésal duñ ko nëbbu am na ñooñ am na ci yooyu dañ koy nëbbu duñ ko fésal dañuy wane ne doolu ko dafa fekk mu doon ndax liy tax mu doon ko moom ni nu ko waxee léegi rek aju wut ci ñi koy def tudde ko ko walla ñeneen tudde ko ko waaye dafa aju ci li nu waxoon léegi rek nekk ca mooy wàll yi ko séq wàll bu ci nekk joxe na dara génne na dara ginnaaw ba am ñuñ jox lu ëpp lañ joxe woon am ñu ñàkk te loolee tegewut ci lu dul chance muur moo tax ci tubaab yi dañuy wax jeu jeu de hasard la ñuy wax hasard hasard mooy loo xam ne dafa daje nii rek dafa daje lu am la nii rek waaye amut ay sabab yu ñu mën a tudd mooy lu aju chance rek lépp loo xam ne noonu la demee rek day tudd carte kon am na ci yooyu fés na am na ci yooyu fesut am na ci yooyu sax dañ koy tudde yeneen tur ba ko amutug ràññee sax mën a mën a jàpp ne nekkul carte te fekk muy carte te bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon lu mel noonu dafa waxoon ne jamono dana ñëw nit ñi di fekk li yàlla araamaloon dañ ñu xame woon ko tur sàngam ñu dem bëgg ko jëfandikoo tax ñu tudde ko neneen jàpp ne bu ñu ko tuddee neneen danañ mën a nax danañ mën a naxe wala ñu seen bopp ba ne araamat ndax tur weneen luñ ko tuddee ci sàngara la ko misaale woon waaye e, misaal la rek waaye ci lu nekk la mën a amee loo xam ne araam na nit ñëpp xam ne araam na nit ñëpp wala nit ñi nit ñi sàmm seen diine ñëpp di ko daw am ñu leen ca bëgg a dugal nag ba tax ñu tudde ko neneen ngir ñu bañ a xam ne mooy lu araam loolee ñu bañoon ñoom ay anamam nag anami carte yi am xeet yi am am na ci xeet yu yàgg yu siiw yu fés jëmi carte daa mel ni turu carte yi ci boppam fi mu jóge rek carte carte mooy carte goo xam ne ci carte lañ koy defee ci carte ay xob carte goo xam ne ci ay xob lañ koy defee dafa mel ne baatu wolof bi foofa la jóge ci carte googee xëy na dafay njëkk siiw mën naa am waaye xeetu carte la rek carte goo xam ne kon ci carte lañ koy defee ay carte la ñuy jëfandikoo di def noo xam ne dana tax ba am ñuy gañe am ñuy ñàkk am ñuy ëpp ñuy jot ñuy am lu ëpp lañu joxe woon am ñuy ñàkk lañ joxe woon loolu mooy carte perte yi ñu ci xamoon fii am nay anam yu wuute am nay anam yu wuute ñu daan def Tuubaa gi yàlla na ci musal jaarale ko sëñ Abdul Ahad waaye fii dañ ko daan defee fii fi wër jumaa ji nii bu màggal jotee day am ñu jógee fan jóge ñëw yor seeni carte di yor di def nii di am na nuñ koy tege boo ubbee boo ubbee sàngam gañe bu dul moom nga ñàkk ñu ciy dugalal ay tappale yu bari waaye loolu xeetu kàtt la am na goo xam ne it ñi koy def ñi koy seq ku nekk day nëbbu walla dañuy seddoo kàtt gi bu ñu ko séddoo ñu wàññi ku ca am lu ëpp mooy gañe ña des ñàkk loolu tam xeetu kàtt la goo xam ne ci kàtt la yàlla yooyu yu yàgg la moom yoo xam ne ñëpp naka jëkk xam nañ ne carte la ba ku bëggute carte moom da koy moytu waaye am na itam yu daan am yoo xam ne ci table lañ ko daan defe table lañ ko daan defe léegi dañ ko def ci lu dul table waaye yëf yenn rek la mooy dañuy am lu ñuy wëndeel rek bu dee taabal bi day am ay numéro ñuy carte kenn ku ne jàpp benn numéro bu ko defee mën nañ faa teg sax xaalisam mu teg ko ca numéro ba wala mu teg ko luy màndargal xaalis ay jeton yoo xam ne ku nekk da koy teg bu ñu wëndeelee kum yëf yi dal ci moom moo gañe mu day boole yëpp jël ñi ci des ñàkk loolu itam daana fii ci màggal bi daanañ indee taabal yooyu di ko fi def màggal fii ci Touba ci Daaru Salaam daanañ ko fi def di ko indi màggal jafe nit ay jóge feneen di ko fi loolu xeeti carte la yoo xam ne moom it ñëpp xamoon nañ ne carte la ba bëggut carte moom du ko def ndax wóor na ko taabal yooya léegi moo wëlbati ko doon yeneen waaye ñu ñu wëndeel lay doon rek moom it bu ñu wëndeelee ba mu dajeeg sa bos rek du sa bos waaye bosu kooka kay carte <laughs> ndax nun foog na yàlla nu ci yàlla musal waaye bu dajeeg bosu kenn ci ñuy carte kooka mooy jël yi ci des ñàkk loolu aw xeet la moom itam mu yàgg wuñ xamoon am na xeet wu yàgg itam ci senegal ñu xamoon ko muy am feneen ci àddina si itam ñu koy wax loterie loterie loterie yépp xeetu loterie la waaye am na buñ ko tuddee nag Sénégal moom dañoo dem sax far ba am am bànqaas ab kuréel buñ ko tuddee te réew mi moom ko kuréel boo xam ne carte rek a ko tax a jóg te réew mi moom ko ñu koy wax loterie nationale sénégalaise LONASE LONASE LONASE ak kër la goo xam ne liggéeyam bépp carte rek la te nag ci xaalisu réew mi lañ ko lañ ko lañ ko taxawale kon day mel ne ñu ngi carteloo réew mi dañuy carteloo réew mi waaye dañuy carteloo ñun ñëpp ndax suñ xaalis lañ dajale taxawal ci kër goo xam ne carte rek rek mooy liggéeyam ñu lonaas am na ñu mu daan def bu njëkk bu njëkk la la gënoon siiw mu di ko def am na bis bu mu jàppoon boo xam ne saa jotee ci lay ci lay def tirage mooy nit ñi dañuy jënd ay ay ticket la nga jënd rek mooy la nga teg la ngaa teg kenn ko day teg am na guddi goo xam ne bu ñëwee ci la ñuy def wëndeel loolu ñuy wëndeel euh, bu génnee Euh, ñu ne kii moo génn le kon gañe na nangam ñi génn liwut ñàkk nañ loolu yàgg nañ ci yem ci ba mu defar ñu dugal ci nag yu baree bare nga xam ne Lonase li muy def ci xeeti carte yu bari la léegi yoo xam ne gën naa yaatu yooyu xëy na ba mu ca njëkk a tegaat mooy li ñuy tudde Paris PMI lañ ko daan wax PMI Paris mutuel urbain mooy carte la koo xam ne dañuy teg loolu tam Lonase bokk na ci yum daan liggéey ba nëgë ni foog naa ne euh, ginnaaw bi nag mu dugal ci bari yoo xam ne man xamatu ma xamatu ma sax waaye yii daal ay carte la yu fi yàggoon ci réew mi ak yeneen réew euh, teg ci ay fas ak teg ci yeneen teg rek teg ci ñuy njëkkante wala ñuy xëccoo mbir kii teg ne kii mooy jiitu kii ci topp kii ci topp keneen wax lan keneen wax leneen bu sottee ña seen wax dëkkoo ak li mujj am ñooña ñooña gañe ña ci des perte loolu moom xeetu xat la bu fi nekk ba nga ni ci fas lañ ko gën a xame waaye léegi ñu koy def ci yëpp ñu koy def ci ñu xëccoo xëccoo xeetu xëccoo bu nekk ci def fi xeetu xëccoo bu ne danañ ci def loolu nit ñi teg ku nekk ne kii mooy jiitu kee cee topp kee cee topp bu sottee am ñu gañe am ñu ñàkk gañe nga ak ñàkk ga tegewul fenn fu dul ci chance rek ndax kanaan kii jiitu kee cee topp da ko tànd rek tànd dafa tànd rek wax kee tànd wax kee tànd wax yàlla dogal am ci la lam tànd da dëppoon ak la am ba mu sottee bu ko defee koo ko gañee ñu ci des ñu ci des ñàkk loolu xeeti li ñuy wax teg la teg teg ci dara ba tey carte la mooy ab xëccoo am ku ne teg ci ne kii mooy jiitu mën nañu àgg ci ne kee cee topp kee cee topp loolu tam ci xeet yi la bokk xeet yi ci gën a yaatu ci jamono jii nag yeneen la yoo xam ne ba tey ci dëgg-dëgg génnut yi waaye dañ ko wutal yeneen mbubb yeneen mbubb lañ ko wutal ba nit bu settantalut mën naa bañ a jàpp ne ci yi la bokk te yi ñuy defee ci lu baree bari ñu di ko defe ci jumtukaay yi tas xabaar yi muy ci rajo yi ak ci télé yi ak sax ci téléphone yi ci téléphone anam goo xam ne nit mën naa bañ a sax carte la ndax léeg-léeg dañ naan dañuy laaj ay laaj dañuy laaj ay laaj ñi tontu tont yu baax ñu tegoo tegoo leen ay bant ñu cay génn gàññee nangam te laaj yi day doon laaj yu yomb yoo xam ne ñépp koy moo tontu daanaka bu ñu dugg rek dana xam ne mën na koo tontu ndax dëgg dëgg jubluwuñu laaj ay laaj waaye lañ jublu mooy nit ñi dugal seen xaalis ndax kii woote bu dee woote la day fay loolu muy fay mooy ab tegam rek mooy ab tegam loolu muy fay mooy ab tegam kon kon la yor dëgg dëgg mooy teg yooyu dajaloo bu ko defee ñu def seenu kart am ñuñ jox am ñuñ xañ ñu mbubboo ko nag mbubbale ko ay laaj yu ñuy laaj yoo xam ne ñépp a koy tontu ba tax na ñii ñuy mën a bokk dañuy bari ndax laaja day yomb loolu xeet la wu ñuy def woo xam ne am na ñu xëy na dañu jàpp ne du carte waaye carte la ndax lañuy ñuy fay ca woote ba loolu mooy seenu teg bu fekkoon ne woote ba dañ cay teg dañ cay fay liñ baaxoo fay ci bu woote rek kon du mën naa bañ a nekk carte bu fekkoon liñ baaxoo fay ci bu woote lañ ciy fay kon mën naa bañ a nekk carte wala bu dee looy bind la SMS. bu dee biñ baaxoo fay ci SMS rek lañ ci fay man bu ma doon bind SMS keneen la ma cay fay bi ma bokkee ci lii itam loolu rek laa ci fay waaw mën naa bañ a carte waaye nag bu fekkee liñ ci fayu ci fii ëpp na li ñu war a fay ci SMS rek loolu mooy war na yow fayuwuñ dem SMS waaye dañ laa tegloo dañ laa tegloo da ngay joxe ab teg la ci carte bu dee woote it noonu bu doon ne liñ lay fayu ci woote bi. mooy liñ la ciy fay boo doon woo sa nit sa sa nituk bopp kon boobaa du nekk carte waaye nag buñ la fayee lu day war ne kon yow fayoo duñ la woote bi waaye dañ lay teg loo kon da ngaa teg yooyu mooy tax ñenn ñi duñ mën a jàpp sax ne carte la te fekk carte la boo xam ne dañ cee dugal ay pexe ba di carte loolu nit te mën naa am sax ñenn ñi duñ ko xam dana dañ naan la rek tontul boo tontoo nangam te laaj yi mu doon laaj yu yomb yoo xam ne ñëpp koy mën a tontu wala léeg-léeg sax dañ naan la rek bindal nangam rek bu dee SMS dañ naan la bindal nangam rek yónnee ko adresse sàngam loolu mooy defoo dara kon ndax bindal nangam rek nga mën caa mooy ne def loo wuñ la dara dañ naa teg loo rek ndax boo koy yónnee la nga cay fay ab teg rek la ab teg la koy teg ci carte boobu. léeg-léeg sax duñ la binduloo sax wala ñu lay tontuloo benn laaj waaye jëmmi woote bi ngay woote rek da ngay woote téléphone rek wooteel rek boo wootee rek da nga daal di bokk ci ñii eh, defal tegoo bant nga mën a gañe ku gañe ku ne am na ñu bare bari ñu perte ku gañe ne am na ñu bare bare bari ca ñu perte te ka cay gën a gañe nag mooy ki koy organisé moom du ci perte ndax génnewul benn xaalis moom génnewu génnewul xaalis nit ñee koy jox seen xaalis bu ñu ko joxee seen xaalis dana tëral tëralin woowu dana am lu ci joxe am ñu ko jox ne gañe nañ waaye dajee am nag moom lu baree bari moom nga xam ne moom euh, moo organisé moo ci gën a gañe nit ñi ñoom ñoo ciy perte bu dee lonaas bi nga xam ne loolu mooy liggéeyam am na wax ju ñu daan wax jàppatuma ko waaye wax joo xam ne wax wax ni naxaate la dañu bëgg gëmloo nit ñi ne lii ñuy def nii lu baax ci réew mi la lu jëme kanam réew mi la lu jëme kanam réew la dañ naan bénéfice bi yaa koy moom waaye la ca des ci réew mi la jëm ba la ca des ci réew mi la jëm lu tax ñu koy ñu koy jëm ginnaaw mi ngoon ci loxo waa réew mi kenn teew ñu bàyyi leen ko rek kenn ku ne ma nga war ak lam ca moom nañ ko ko bàyyee lu tax ñu koy laaj di ko perte la ba naan ko ci la eh, waaye carte moom du lu jëm ci réew kon yii ay xeet la ak yeneen yoo xam ne ci jumtukaay yu ne lañ koy jaarale ci téléphone yi ci rajo yi yëpp sax téléphone la rajo yi tam da ngay war téléphone téléphone woote wala nga bind wala ci internet bi yooyu yëpp dañ ciy jaarale xeet xeet kàpp yu bare bare bare ba am na yuy am sax yooyu jamono yu mujj yi am na yu yu xew yooyu ña koy ña cay woote dañuy wone ne ab liggéey lañuy ñuy def boo joxee sa xaalis dañu dañuy boole sa xaalis ak xaalisu ñeneen ñi liggéey ci nga am ci bénéfice am loolu la wax waaye li ma foog lool mooy carte la gën a nuru ndax gëwuma ne liggéey bañ cay wax dana ca am gëwuma ne liggéey bañ ca wax dana ca waaye dañuy dajale xaalisu nit ñi rek bu ñu dajalee xaalisu fukki nit jox ci ñaar wala ñu njëkk a ñëw ñu jox leen buñ demee ba jëmmi jamono ñu mujjee ñëw moom ñu daw ak seen xaalis duñ xamante ci ñoom dara lu mën di xew mën naa yor meloo carte ba ko yor ak bi ko yorut moom ak njub lan laa ci gën a foog boo amutoon njub lan it doonut moom lu dagan ci lislaam doonut lu dagan ci lislaam ñu ne la joxeel xaalis te am nangam ci bénéfice nangam tudd la bénéfice ni mu toll loolu mënut a nekk bénéfice kenn mënu koo xam te liggéeyagul bénéfice ba lañ koo xam liggéey day am ba not bu amee bañ xam ne bénéfice am na ñu door a xam ne bénéfice am na buñ xamee ne am na ba nopp tam ñu door a xam nu mu toll buñ xamee nu mu toll ba noppi la ñu door a mën a xam loo cay am yow waaye liggéey bu ñu liggéeyagul ba noppi bëgg laa wax yow bénéfice ba nga cay am. te xamuñ ndax bénéfice dana amam déet bu amee nan lay toll tam xamuñ ko kon bénéfice kenn mënu koo fixé te liggéey amagut lépp lu tëddee noonu dëppoowut ak tëraleen yi lislaam tëral ci yoon yi ñuy amee mën ngaa génne sa xaalis keneen génn keneen génn keneen génn ñu dajale xaalis yooyu liggéey ci waaye duñ mën a wax kenn nag ne ko da ngay am bénéfice sàngam te liggéeyagul waaye mën nañ leen nag bu ñu liggéeyee nag bu bénéfice amee danga ci am lu méngoo ak li nga joxe woon waaye mënuñ laa ko nàngam lay doon saa bu ñu ko waxee rek nekkatul du dëppoog tërali ni lislaam tëral ci wàllu ci wàllu euh, liggéey kon yooyu ay xeet la ci xeeti carte yi fi yàgg ak yi nga xam ne yàgguñ ci lool te yu ci bari sax ñu bari mën nañoo jàpp ne du kart fekk carte la carte nag ay lor rek a ci nekk loolu LONASE di wax naan am nu mu koy waxee daal euh, ñi ñi ñi bokk ñooy gañe waaye bénéfice bi ci réew mi lay dellu benn bénéfice amut non yaa ngi carte la waa réew mi naan bénéfice bénéfice bi day am ñu ciy dund rek day am ñuy dund ci kaw nit ñi ñoom ñi ciy dund nag danañ seddaale ñenn ndax la ñuy sedd ñenn ñi mooy tax nit ñi di ñëw kenn ku nekk day am yaakaar ne day bokk te ñun sedd moo tax mu ñëw di jox xaalisam kon danga sedd ñenn rek li ci des nag yow mi organisé yaa koy yaa koy moom kon jumtukaayu jumtukaayu dund ci alali nit ñi rek la boo xam ne ñi am xel yu ñaaw ñoo koy tëral di dund ci nit ñi li ci sedd nag ay benn benn rek ndax loolu moo tax nit ñi mën a ñëw denn seen xaalis ay loram kon ay lor kese ci nekk ay lor kese moo ci nekk waxoon nan léegi yàlla ci alquran muy tudd carte di ko boole ak sàngara ci niñ ko waxee ci ne sàngara ku ne xam na ak mbonam ba jullit ñi tudde ko ne mooy yi ju ñaaw yi umul xabaais kon luñ koy booleel di ko tuddandoog moom di leen joxandoog àtte moom it lu bon rekk la fi mu ne yàlla bàkkaar bu mag mu ngi ci ñoom ñaar ak lu nit ñi jàppee njariñ waaye seen bàkkaar moo ëpp la ci nit ñi jàppee ay njariñ fi mu leen di araamale mu boolewaat leen tudd ne sàngara ak carte sobe la ak yeneen yu jum leen booleel sobe lañ jëfi seytaane lañ na ngeen ko moytu bu ngeen bëggee am li ngeen di wut na ko moytu seytaane kat daa bëgg indi ak noonoo ak bañante seen diggante rek te jaare ko ci sàngara ak carte daa bëgga a dox seen diggante ak fàttali ko yàlla ak julli te jaarale ko ci sàngara ak carte foofu la leen araamale ñoom ñaar neex ndax da ngeen leen bàyyi ndax da leen bàyyi mu mel na kuy kuy kuy kuy tëkku wala kuy xukku kuy xukku nit ñi ndax waxin woowu mooy bu ngeen leen wut la leen cay fekk du leen neex ndax da leen bàyyi kon li jiitu ci loram mooy lii yàlla tudd ci laay jooji li yàlla tudd ci laay jooji moo jiitu ci ay loram mooy day jur ak noonoo ak mbañante diggante nit ñi ñiy carte ñiy carte bu yàgg-yàgg ak noonu waa ko mbañante dana dox seen diggante ndax li ñuy wax xunn xunn mënta ñàkk ci kuy carte kuy carte bu ñu ko dàqee lu bara rek day xunn day jékki-jékki siguñu lànk na day siguñu bu ko defee xuloo jóg xeex jóg bañante ak noonu daal am kon gàtt lor ji lor yi bokk na ci li muy jur ak bañante ak noonu diggante nit ñi te loolu yàlla moo ko waxal boobu ci alxuraanul karim nee na seytaane mooy mooy mooy dox loolu te jaare ko nag ci sàngara ak carte ci lay jaar ba def seen diggante ak bañante ak noonu bu dee carte ci anam jii la koy defee mooy ki ñuy gàññe bu yàggee rek day xunn day xunn mooy du nangoo joxeet nangoo joxe lañ ko lañ ko lam ñàkk du ko nangoo joxe lam war a joxe du ko nangoo joxe bu ko defee jàppante am xuloo am xeex am noonoo am bañante am kon loolu mooy li ci njëkk la ca topp mooy la ca yàlla la ca yàlla topp toftal lam ca toftal mooy day dox seen diggante ak fàttaliku yàlla ak julli mooy carte yi itam day dox diggante nit ki ak fàttaliku yàlla day dox diggante nit ki ak julli mooy ak def lu baax rek ndax kii ne ci carte tal leneen du tal leneen fu mu toll xelam lépp mi ngi koy def ci carte gii mu nekk di yaakaara gañe li ñuy wax paye lii bi muy xew xëy na sax mi ngi xew ba bi muy gën a siiw daal ay jamono ku masaan dem ku masaan romb béréb yi ñu koy da nga xam ne ñii ñoom leneen taluñ leneen daanaka buñ xëyee ba ngoon loolu rek la ñu nekk mooy xoos bañ daan lañ daan tudde xoos bañ daan xoos foog na xeet yooyu daawuñ tal leneen duñ tal jaamu yàlla duñ tal di fàttaliku yàlla duñ tal di julli loolu kon carte dafa bokk ci ay loram mooy ñaareel laay jooju la boole eh, carte ak sàngara di araamal leen yaa ayyuha dina amanu innama alxamru walmaysiru wal ansaabu wal aslaamu rijsum min amali shaytaan fajtanibuuhu laallakum tuflixuun innama yuridu shaytaanu an yuqia baynakum al-adaawata wal-bagdaa l-xamri wal-maysiri wa yasuddakum an dikri llaahi wa ani fa hal antum muntahuun mu dëgëral dëgëral lool ndax da leen bàyyi bi ma leen xamalee lor yi ñu leen di yóbbee muy sàngara ak carte kon day dox diggante nit ak fàttaliku yàlla day dox diggante nit ak julli day dox diggante nit ak lu baax rek ak def lu baax loolu bokk na ci euh, lor yi bokk na ci lori carte it day tax ba nit ki ki ko ki ko ki koy def ki koy def mujj du nangoo liggéey du nangoo liggéey àddinam jëpp da koy teg rek ci chance chance bi ñu waxoon àddinaam jëpp day jàpp ne ci chance rek la aju du nangoo tey liggéey ndax liggéey bu mu bëgg a def rek mi ngi am yaakaar ne bu carte mën na caa amee lu ëpp la mën a amee ci liggéey boobee ba tax na bu taxasee soobu rek génn ci du yomb ci moom ndax bis bu ne mu jàpp ne bu ëllëgee mën na maa gañu loolu nag ku ci ku ci dugg kon du nekkati kuy liggéey walla boog bu joxati ab liggéey yitte jëm ko war a jox ndax jamono ju ne li ñu am yaakaar yi gañe te bu gañee da cay jëli lu ëpp fopp fopp fopp la ñuy jëlee liggéey yi te du ci sonn coono booba du ci sonn coono ba muy sonn ci liggéey te dana ci jël lu ëpp lu ñuy jëlee ci liggéey te fu mu nit mi ngi am yaakaar ne dana gañe loolu mooy tax kon mu génn ca day jafe kon day mujj doon koo xam ne kon du doon kuy liggéey te loolu nag bu yaatoo cim réew yamut ci moom ñii mu lor ko moom rek waaye réew mi yëpp lay lor ndax am réew bu ca ñu baree baree bari defatu seen xel ci liggéey rek loolu lor lay doon ci réew ma luy daane am réew lay doon luy daane lay doon fekkee ñu baree bari ca waa réew ma ku ci nekk saa bu xëyee ñu ngi jàpp ne war naa mën a gañe lu baree baree bari loo xam ne du ca am coono bi muy am ci liggéey ba tax du liggéey loolu bu yaatoo ci réew du yem ci lor ñi koy def rek ndax mi ngi leen di lor ndax liggéeyu ña ngay perte di ñàkk seen alal ak yeneen lor yu ñu waxoon di jur di leen jural ak mbañante ak lu noonoo waaye da cay dolli it nag di jural réew mi ak dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci wàllu koom ndax ñu baree bari ci waa réew ñi mën a liggéey dañoo deful seen xel ci liggéey dañuy am yaakaar yi am lu bari te duñ liggéey loolu kon lor la joo xam ne da koy lor da lor réew mi bokk na ci lor yi it mooy day sànq waxtu day tàyyelloo nit ndax ni ko waxee koo xam ne yaakaaram yépp da koo aj rek ci xoos xoos dara gañe ci xaalis bu bare wala woote ak woote rek gañe ci xaalis bu baree bari wala bind dara yónnee ko rek gañe ci xaalis bu baree bari mu def ko yaakaaram yoo xam ne bu ko amul teyit foog ne dana ko am ëllëg kooku day doon ku tàyyeel ku tàyyeel lay doon ku sànq waxtoom lay doon mooy waxtoom da koy sànq du ci def lu ko amal njariñ ndax fu mu toll itam yépp mi ngi ko def ci carte gii mu nekk te jamono jure nag day am yaakaar yi gañe loolu moom moo jën moo ci doy waar nit ki du dem ba ne ah man de xam naa ne lii moom li ma ci bëggoon xam naa du ko jaam ndax fu mën di toll rek mën naa jàpp ne bu defaatoon benn yoon rek am boo amatul mu jàpp ne bu defaatoon benn yoon am moo tax ba génn ci day jafe ci moom lool te loolu la mu ko yóbbee ni kon mooy tàyyeel ak sànq waxtoom ak liñ ko waxee woon léegi delloo ginnaaw réew mi ba koom koomu réew mi dellu ginnaaw li réew mi di liggéey ci lu amal njariñ waa réew mi di dellu ginnaaw di néew loolu itam bokk na ci eh, lor yi nga xam ne nekk na ci carte waaye bokk na ci lor yi itam li muy ñàkkloo nit ñàkk nit dana am dara nekk ci liggéey am na ñoo xam ne dañu ne yor seenub liggéey waaye xel mu ñaaw jàpp leen ba tax ñu dem di kart man nañ caa dem ba lañ amoon lépp ñu ñàkk mën nañoo dem ba seeni kër tas sax am na carte bu nekk yóbbee na ko nit am na kër yu tas koo xam ne amoon na dara waaye carte tax na loolu lépp mu ñàkk ñàkk liggéeyam dem ba këram tas ndax waa këram mënatu leen a yor te ñoom mënuñ koo muñu ndax dañoo xam ne li li tax mënatu leen a yor moom moo ko def duñ mën a toogati di wéeru ci koo xam ne carte la def yitteem ndax mënatu la liggéeyat si carte gi xas na ko moom ba noppi bis bu ne mi ngi yaakaar a gañe lu bare bare bare bare waa këram yi duñ duñ duñ mën a moom ci loolu moo tax bari na kër yi mu tas ci anam googu ku ci duggu ba ñàkk la mu amoon lépp ba munta yorete waa këram te waa këram duñ mën a mu ku mel noonu ndax lam dugg dañ naan moo ci dugal boppam tey nangoo tuta liggéeyati la ko ñàkkuloo ca loolu rek la bëgg a sax te bu ca saxee ñoom ñii du leen mën a yorati bu ko defee ñu ñu tasaaroo bàyyi ko fa loolu am na yàgg naa am yàgg naa am ay gëstu yu bari wane nañ ko ci réew yu bari ñoo xam ne carte moo leen ñàkkuloo carte moo tas seeni kër carte moo leen toroxal toroxal ñu doon ñu torox amam bu ko borom bor yi taxawoo rek li mu am lépp dañ koy jaay dugal ko ci bor yi bu ko xeeti ci xeeti ñàkk yi gën a metti la bokk ndax day ñàkk boo xam ne dafa dafa dafa gaaw day mel dafa gaaw ndax ba démb rek yëf yaa ngi fi woon kër yaa ngi nii oto yaa ngi nii ñu naan moo ko moom tey tey rek moomutu ci lenn ndax dañ koo jaay dugal ko ci borom ñàkk bu bu doy waar la muy li ñu def fayit ndax day ñàkk bu gaaw boo xam ne amut waajtaay daanaka te carte dana ko ay nit ndax bu leen di dàq dañuy li mooy mënut a ñàkk def yooyu yëpp ndax yaakaar ji muy am a tax li jàpp ne dàq nañ ko dëgg la waaye nag bu ma jaayoon bu ma bu ma demoon leb fee bu ma ñëwee teg man na maa gañe bu ma gañee li ma ñàkkoon lépp dinaa ko jotaat dinaa fay bi itam bu demee ñàkk day lebaat noonu lay def di ko def di ko def di ko def ay borom lépp li mu am ci ay am am bu ko defee mu fayit loolu carte dana ko dana ko yóbbi ay nit bokk na ci li carte di yóbbee ay nit it dana yóbbee nit sax eh, ak yàqu li ñu tuddee yàqu yàqu yàqu mooy mu yàq ay jikkoom nag far walla yàq jëmmam sax mooy carte kat buñ ko da yàggee dàq naqar wi muy am ak yaakaar tas ji muy am lu ci bari dana ko yóbbe ci di jëfandikoo lu koy tàggaleek sagon ngir jéem a woyofal naqar wi muy nekk muy kon carte dana yóbbu nit ci muy jëfandikoo lu koy tàggaleeg sagoom ngir naqar wi muy nekk ak yaakaar ju tas ji muy nekk mu di ko jéem a woyofalal ci xelam ak ci xolam bu ko mu dugg nag ci loo xam ne boobu sax mooy yées ndax dugg ci li koy tàggale ak sagoom moo xam muy sàngara moo xam muy drogue yooyu yëpp kartkat yi bari na luñ cay tàbbi te la leen cay tàbbal mooy eh, di jéema fàtteloo seen bopp loolu ñu nekk ci naqar ngir ñàkk bi ñuy ñàkk ngir perte bi ñu perte loolu kon bokk na moom it ci